ku sant sëriñ Saaliw Mbàkke moom Seex Bamba buur yàlla jéggal la fegal la sant mbaa sëriñ Saaliw Mbàkke moo jara sant bay feccaale mooy mànga siini barke mooy kam doole sëriñ Saaliw Mbàkke moo sell tëggëm Seex Bamba tëggëm Rasulullahi may yoneen mbaa sëriñ Saaliw Mbàkke moo sell te moo di docteur moo ni fegal li bëgg yokk aw toor ku ko ne jàkk xam ne moo di Seexu Bamba wallahi géej ñu róoxul ak ku dem fa moom mu wan ak yoneen ba ak Seexina Bamba may sëriñ bu mag ba ku ko na jàkk xam ne moo di Seexu Bamba walaay géej ñu ruuxu ak mbalka sëriñ Saliou Mbacke moo sanc xel kom saxal na fay daara ku dem ba xel kom yéem sa tub maam jaara ha ilaha illallah fa Seex Ibra Fall la ilaha illallah إله إلا الله فانغل يا حنان المنان لا إله إلا الله لا إله إلا الله فانغل جل جلاله لا إله إلا الله لا إله إلا الله فعل سيكبر لا إله إلا الله فلا إله إلا الله فعل Cheikh Ibra Fall la ilaha illallah taxawlu naa maa ngi ñaan sëriñ Tuubaa na defar suñu mbir yëpp baatinan aw baana wa haballahu bihim li Muusa ànd ak sëriñ Tuubaa te taggug buusa amina amina yéen mbooloo mépp ne leen amina ndax bu ëllëgee Seex Bamba defal nu yor man